di leen nuyu ci turu waa daairatu xidmatul xadim bi nga xam ne ñooy bale mbooleem li nga xam ne moo war bitib jumaa ji li ko tàmbalee min wi jëm fajar ci guddi ajjuma gune tey jii nag ñu ñëwoon fii eh, di leen gaaral liggéey boo xam ne nii dolliwaat nañ ko tey jii ci seenub liggéey eh, mu jëm ci eh, lu jëm ci wàllu mbalit mi nga xam ne moom la ñuy bale mu jëm ci bitub jumaa ji waa addiye jooju ab camion la xam ne nii xidmatul xadim yàgg na ko bëgg yàgg koo naal ndax dafa yàgg am jafe-jafe ci saa bu ñu masaan bale bitib jumaa ji ba pare fan la ñuy tuur mbalit mi ba man koo génne mboolem li nga xam ne moo sori bitib jumaa ji ñu yàggoon cee am jafe lool waaye ci baaxu cheikhul xadim ak ndimbalam mu defal ñu tawféex ba tey jii xidmatul xadim fàggu camion boo xam ne nii moo ko fàggu ci ñàkku boppam ngeen gis ko nii euh, moom lañu indi woon tey jii doon ko gaaral sëriñ bi ginnaaw bi nga xam ne génn na ba def gisal ko boppam muy Cheikh Mamadou Bassir moom mm, Serigne Abdoul Khadir euh, ba def ci ñaan rafet la ko bu baax a baax a baax tamit soññee ci camion bi nag ñoo ngi ko jëndee ci 9 millions lañ ko jëndee ñoo ngi ko jëndee ci 9 millions lépp it ñàkkuwaay liggéey bi rek la. Euh, ginnaaw bi nga xam ne xidmatul xadim jënd na ay poubelle ci waloolu lu ëpp 3 millions wërale ko mboolem li nga xam ne moo wër bitub jumaa ji muy poubelle yi nga xam ne mboolem kuy romb ci jumaa ji yaa ngi koy bàyyi xel di ko gis daawit ku neex gis na ne jëndoon nañ benn oto boo xam day bale di tonni indi woon ko ci sëriñ bi moom it dara dox ko woon a jug lu dul euh, muy bale bitib jumaa ji naka noonu nga xam ne tey jii noonu lañ jëndee camion bi nga xam ne moom it ko tax a jug mooy tonni mbalit mi nga xam ne ak suuf si nga xam ne moom la ñuy balee ci bitib jumaa ji